marhaban ndimbal lu fas yéene tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall ko ci askan wi moom la mbooleem yéen kay xëyee ni ki tey jilee Le Soleil nañu moom njiitu réew mi Macky ni kii démb ci ndajab conseil des ministres ya la daal di xamle ni fas yéene naa yëkkati lu toll ci ñeent fukk ak ñetti milliards yi francs CFA ci ab cash transfert fas yéene ko tas ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari junni ak juróomi ñeenti téeméer ak benn ci ay njël ya nga xamante ne seeni loxo jotul seeni ginnaaw te ñu daal di leen répertorier ci registre national unique ba ab cash transfert exceptionnel la ko suñu jàppee opération yi fukki fan ci weeru mai lañ ko fas yéene door bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil ci ab ndaje bi nga xamante ne moom njiit réew mi Macky Sall ci boppam moo ko fas yéene jiite Vox Populi nañu ab opération la jëmale ko ci wàllum dimbalante dibb solidarité waral suñu natango yi di xamle ni moom Macky Sall fas yéene naa séddale ñeent fukk ak ñetti milliards yi francs CFA juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari junni yu tekk juróomi ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay njëla critique yéene kaay ne Macky Sall daat taxaw tam ngir wàllu ji ci Sénégal ci wàllum politique yéen i kaay daal nañuy dikkaat ci élection législative yi ñuy dëgmal fanweer fan benn ci weerum sulet l'info yéen i kaay ñëwaat ci pexe dib stratégie bi waa parti démocratique sénégalais lal jëmale ko ci les élections dellu suwaatu Karim Wade ak tamit nees def ba mën a jotaat ci nguur gi ñoom waa PDS bu ñu sukkandikoo ci l'info daal nañ ci taxaw tem gàddu seen ay ngànnaay fas ci jàmmaar la ko président Macky la ñu daal yéenekaay l'info moom meeru Kébémer ba daat na xamle ni yile élection législative doon nañu ab jéego ju mucc ayib jëmale ko ci xàll bi ñu war a tegu ngir mën a jotaat ci nguur gi waral ñu fas yéene def seen kéemtalaay kattan ngir mën a am limu député yu takku ci assemblée nationale Walf Fadjri quotidien moom si jojule jamono mu ngi addu jëmale ko ci wàllum parrainage yu mu jàpp ne ñii di waa Benno Bokk Yaakaar daal dañu taxawalu pexe ci indi ci wàllu woowee ay gàllankoor di maanaam ay bi ne ñoom ñi ñu leen laaj ci parrainage daanaka ñuy ut jamono ji liñ ci jublu nag moo di tere ñenn ñi ngir ñu daal amal seen ay liste parallèle waaye itam fexe ba indi li gàllankoor ay parti yu ndaw ngir ñu bañ a matal seen i ay limu parrainage l'observateur nañu moom Macky Sall daal soobu ci xeexu élection législative ya li koy firndeel moo di ne moom njiital coalition Benno Bokk Yaakaar daal dinay woote bu ndaje ni ki ci palais de la République lu ñeel élection présidentielle ya Sud Quotidien daal dinay xëy présidentielle 2024 ya ba léegi kenn mënut a fexe ba am lu leer ci taxawaay président Macky Sall ndaxam day laaj ñetteelu mandat am déet loolee nag li ko ko may moo di napp bu mu napp ay àndandoom ne buñ ci yëy buñ ci yàbbi benn yoon loolee waral suñu naataangoo yi ne fu mu toll nii kay moom président Macky mooy doxal agenda wu élection am yi ni mu ko bëggee jàngeen jëf